seetaan di ñu dégloo ci Muslih TV ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci mottali juróomeelu euh, juróomeelu façon wala juróomeelu kii symboliser biiru néegu sëyam walla góor buy denc soxna waxoon nañu ne jëkkër yi juróom lañu waxoon nañu ne soxna yi juróom lañu mbonaat ak i qualitéem ki ci topp mooy urs ak i qualitéem ak point faible waxoon nañu njàppaan chacal ay qualitéem ay point la waxoon nañ tamit gaynde géej qualité yi mu am point yi mu am ñu ngi ñëw ci juróomeel bi juróomeel bi nag mooy jëkkër boo xam ne walla soxna soo xam ne ñu ngi koy dàkkantalee pitax pitax nag buñ ko waxee ñu bari xam nañu ci àdduna bi pitax moom mooy symboliser jàmm ak xeewal waaye ci néegu sëy am na soxna soo xam ne pitax la pitax li muy symboliser mooy boroom kër goo xam ne ku rafet la te yëgul boppam ku set la te ajul boppam ku baax la ku bari jàmm la ku bëgg nit la ku positif la waaye ku fees palaasam la pitax daal li muy symboliser mooy jigéen bu amul sikk ci néegu seyam waaye mooy symboliser jëkkër bu baax bu maandu ku rafet ku organisé wu waaye ku set ku active koo xamante ne ku bëggu soxnaam la ku yërëm soxnaam la jëkkër boo xam ne pitax la mooy jëkkër boo xam ne léppam dafa baax ba tax na boroom xam-xam yi bi ñuy gëstu est-ce am na soxna soo xam ne mën nañ ko dakkantalee pitax ndax mooy soxna bu amul sikk est-ce que am na jëkkër bu ñu mën a dakkantalee pitax ndax mooy jëkkër bu amul sikk léppam daf koy taxawee mu mot gis nañu ni daal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom daal mottaloon na caractère yooyu ak melokaan yooyu ba munoon nañ ko tudde moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëkkër boo xam ne mën nañ ko symboliser pitax kazalik ñu gis ne sunu yaay Khadija sëy na ak rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak juróom te rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mosta am lu ko nakkari ci moom ci mbaaxaayam ci tabeem ci setam ci organisewam ci mën a taxawu jëkkëram sunu yaay Khadija mooy soxna soo xamante ne mën nañ ko symboliser ki nga xamante ne moo nekkoon pitax mooy soxna bu amul sikk ah xëy na dina am ñeneen ñoo xam ne mën na leen ci boole waaye ku mel ni rasulillah ci góor yi daal jafe na lool waaye ku mel ni ki sunu yaay Khadija jafe na nga gis ko soxna bu mel noonu mën nañ tudd lenn ci ay qualité sunu yaay Khadija sunu yaay Khadija moom ci boppam mën nañoo wax ne moom moo njëkk def ay tànk yi jéego pour wone ne bëgg na sëy dox digganteem ak rasulillahi sallallahu alayhi te sunu yaay Xadija bu muy def tànk yooyu di ko jéego pour loolu am du alal la xool ci yonente bi waaye jikko bu rafet waaye maandu waaye dal waaye baax waaye tabe ay qualité la gisoon ci moom sallallahu alayhi wa sallam ba ko rasulillahi sallallahu alayhi wa takkee moom sunu yaay xadija nekk milliardaire daa jël alalam yépp ne ko yaa rasulallah lépp lu ma am ci alal rekk teg naa ko ci sa loxo bu ma ci tàggu ci lenn yow yaa ko moom sunu yaay xadija amoon na benn jaam bu jigéen jaam bu góor bu tuddoon Zayd mu a yaa rasulallah kii de sama jaam la woon waaye niki bésim tey mii sedd naa la ko yow yaa ko moom sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay Khadija ne ko yaa rasulallah mu ne ko ah mu ne ko ginnaaw teykat kër gi nga xam ne sama kër la man Khadija fii ci makkatul mukarrama yaa rasulallah kër gi tey sa kër la yow yaa ko moom yow yaa fiti digal yow yaa fiy teral sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay Khadija mosuta am benn dérangement ci yonante bi di tibb alalam di ko def ci lislaam di ko jàppale ay jullit ba alaloo sunu yaay Khadija mu dee jeex takk sunu yaay Khadija dund na ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu embargo leen ñu xiif bay lekk ay xobu garab te sunu yaay Khadija mosuta caalit mosuta wax ne Muhammad yow yaa tax tey amatuma alal sunu yaay Xadija ay mbokkam mere nan ko ay xaritam mere nan ko ngir lan ngir taxawaay bu rafet bi nga xamante ne moom la taxaw ci wetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sunu yaay bi bindal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam certificat d'honneur keroog bi rasulillahi gisee Jibril ca xut ca xaarul xiraa mu ñib si tiit yaakaar ne seytaani la gis xadija taxaw taxawaayu yaay ne ko muhammad sallallahu alayhi wa yàlla du la teg gàcci yàlla du la rusloo yàlla du la teg nattu ndax dangaa nekk ku baax danga nekk koo xam da ngay wodd ku rafle danga nekk koo xam ne ku xiif nga lekk nga jox ko mu lekk ba suur dangaa doon koo xam ne dangay fat say mbokk dangaa doon koo xam ne dangay ko ak say mbokk bon yii ay kàddu témoignage la yoo xamante ne suñ yaay Xadija moo ko tee moo ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk góor gu rafet góor dakku ko góor yépp moo ci gën a rafet rasulillahi sallallahu sallam mooy góor goo xam ne kenn jotu ko ci jikko bu rafet ba yàlla tagg ko ci wa innaka la ala xuluqin azim ya rasulallah fii jikko yu rafet yi jeexee foofu la muhammadin sallallahu alayhi wa sallam commencé muhammad mooy góor goo xam ne mësuta wóor soxnaam muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy góor goo xam ne musu tak yëkkati bu ñaaw jëm ko ci soxnaam rasulullahi sallallahu alayhi sallam mooy koo xamante ne musuta xool bot bu ñaaw dem ko ci soxnaam rasulullahi sallallahu alayhi sallam mooy góor boo xam ne góor bu gore la góor goo xamante ne lu mu gis ci lu baax yéene ko soxnaam balaa mu ko yéene boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy góor goo xamante ne kenn di ko influencé ba moom mu fecc wallore wallore ba mu wallore ba mu sekkoon ak sunu yaay Khadija démb ak barke démb wallore boobu moom la sàmm ba sunu yaay Khadija xëy génn àdduna rasulullahi sallallahu alayhi bi sunu yaay Khadija feebare bay waaj a gaañu sunu yaay Khadija def ko ne yaa rasulallah mu ne ko naam mu ne ko wóolootuma sama bopp daa mel ni ki li ma desee ci àdduna bariwul waaye dama lay baalu ak bu fekkente ne am na gàttañlu boo xam ne def naa ko sama diggante yow ci wàllu néegu sëy rasulullahi sallallahu alayhi ne ko Khadija amul benn gàttañlu boo xamante ne def nga ko ci sa néegu sëy walla ci sa diina gërëm naa la sant naa la sun yaay Khadija ne ko yaa rasulallah sama caat bi dama bëgg nga sàmmal ma ko bëgguma lenn lu ko nakkari bëgguma kenn ku ko door dóor ma kenn ku ko maltraité muy Fatimatu Zahra yonent bi sallallahu alayhi ne ko Fatima sama deret la lu ko neex neex na ma lu ko mitti mitti na ma sunu yaay Khadija ne ko yaa rasulallah ñi ma damaa ragal bàmmeel dama bëgg mbubb mi nga soloon keroog bi alquran di wàcc ci yow na nga jël mbub moomu nga sàngee ma ko rasulillahi sallallahu alayhi wa ne ko xadija ne xadija mbub moomu moom laa lay sange bu fekkee ne jóge nga ci àdduna xadija daldi kontaan ñu toog as tuut xadija jibril dal di wàcc si ne yaa rasulallah assalaamu yuqri'u salaam ala sayida xadija ne ko yàlla mu ngi nuyu xadija yonante bi dal di gëstu xadija fekk mu ngi feebar ne ko yaa xadija yàlla yónni yónni si na jibril yàlla mu ngi lay nuyu garaat bu rëy boobu lu ko may xadija sëy bu rafet ak respecté sa diina xadija ne yaa rasulallah yàlla ci boppam tudd na sama tur ba jëral ko mu yónni si jibril pour nuyu sima mu ne ko waaw waaw jibril a ngi ni taxaw ci sama wet di naan assalaamu yukriku salaam yàlla mu ngi lay jottali ak nuyoo yemu ca jibril andi woon na benn malaat malaan bi nit di yóbbu ci bàmmeel ne ko yaa rasulallah mu ne ko ah, mu ne ko mbalaan bii xadija bu génnee ci àdduna moom lañ koy sange bon xadija ñaari mbalaan la yóbbu ci ajana benn bi mooy mbubbu rasulullahi sallallahu alayhi bi mu gaañoo mooy yonent bi defar ko ba pare moom la ko sange ba pare jëlaat beneen sër bi nga xam ne jibril moo ko jëlee ci àdduna daldi ko sàng sunu yaay Khadija ba pare nag yàlla ci làmmiñu Jibril mu woon sunu yaay Khadija ne yàlla tabaxal na la kër goo xam ne birig ya or la ciment ba or la suuf sa or la boo tollee ci biir da seetu boo nekkee ci biti da ngay seetu Khadija kër gu mel noonu moo ko teeru ci àjjana la ko ko may moo di sëy bu rafet bi mu sëyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëggu képp kuy jigéen nga roy ci sunu yaay Khadija ndax boo génnee ci àdduna sunu yaay Khadija man daa teeru si ci sa bàmmeel teeru si la ci buntu àjjana waaye mbégte bi yàlla am ci sunu yaay Khadija képp kuy jigéen man ko am wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.